te mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, tey nag ñu amal fii ñoo ngi fii ci pencum Serigne Afia Bousso ci Daaru Marnaan fas yéene fee amal ab jotaay bu ama am solo boo xam ne laytaay la ci bis bu màgg boobu nga xam ne bu nu nekkee jotaay yépp xel yépp da ciy dem mooy bis bi nga xam ne ci lañ ciy fàttali fàttaliku jëmm ju màgg jooju ju sell jooju de sëriñ bu so ñu fës yéene ci amal ay jotaay yu baree bari incha allah ngir waajal ci ak laytaayal ci bis bu mag boobu nga xam ne tudd naa ko léegi tey di bis bi <coughs> yooyu di jotaay bi njëkk ci jotaay yooyu ñu fës yéene ci ànd ak koo xam ne kenn dootu ko présenté ci yoon wi waaye rawatina ci ëtt bi ñu nekk muy sëriñ Mouhamadul Fadal Bousso Thierno ci tom bu ama am solo boo xam ne danañ ci ñëw léegi waaye balaa loolu ñu xam ne rek fàttali fàttali bu euh, ndaw rek ci ne jotaay bii euh, fondation Jaalibatul Maraghib di kuréel gi lëkkale sëti sëriñ Afia Bousso ñoo ci ànd ak euh, sëti sëriñ Mouhamed Fadal Mbacke ibnu Cheikh Ahmad Khadim Ahmad moom lañ tuddee bis màgg bi nga xam ne moom lañ jëm tey nag Cheikh Mouhamadul Fadal Bousso fas yéene ànd ak ñun ci thème thème bu ama am solo mooy relation bi nga xam ne moom la Serigne Afia Bousso amoon ak Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke ibnu Cheikh Ahmad Khadim thème bii nag buñ koy waxtaanee xañ na mbokk yi dootul jaaxalati kenn ne rek doy na sëkk ñu ne sëriñ Afia Bousso nijaay la ci Cheikh Mouhamadou Fadel Mbacké kon loolu rek buñ ko waxoon rek doy na sëkk rek ñu ne kon war nañoo waxtaane kon relation bi amoon ci diggante euh, sëriñ Afia buso ak sëriñ Mouhamadou Fadel Mbacké ibnu Cheikh Ahmad Khadim waaye ngir bañ a jël waxtu wu bari xam naa dañuy dugg dugg mubasharatan rek ci thème bi di jox Cheikh Mouhamadou Fadel Bousso bismillah wa ala wa sahbihi wa ummatihi ajmain amma baadu fassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ayuha al ixwatu almusaahiduna alkiram wa ayatuha al axawatu almusaahidaatu alkarimat mbokki jullit yi ñuy seetaan ñoo ngi leen di wax nuyu di leen nuyu di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu waaye nuyoo boobu nag ñoo ngi ci jiital as-Seex Muhammadul Muntaqa xafizahu llahu waraahu kama nuxassisu taxiya li aali lxalifati al agar as-Seex Muhammadin al Faadil Mbakki wa fi muqaddamatihim asseyxu abul baraka mbakke xafizahullah waraa ñoo ngi nu itam sëriñ abu baraka mi fi toogal seex mahamadul fadal te buñ ko nuyoo nuyu nañ njaboot ak seex mahamadul fadal ñëpp <coughs> góor ak jigéen ba ci sët yi ak mbokki taalibe yi ñoo ñëpp nag dañ leen di nuyu ci turu sëriñ alxaaji fadal bu sa ndumbe mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Afia Bousso ataalallahu umra ci jataay bii tam ñoo ngi nuyu mbokk yi fi teew buñ tuddee al imam alxaaji Yaxya Bousso ak sun gan yi jóge ci kër Cheikh Mamadou Fadal Mbacké nuyu itam mu assasatu jaalibatul maraaxib abral lajna saqaafiya sant leen ci waxtaan yi ñuy def ngir lay taale ko màggal ak sëriñ Aafiya Buso kon hada al xadis al qasir yaduuru insha allahu taala an al alaqati al kaanat tarbitu bayna saxsayni faaniyayni fi xubbillahi wa rasuli wal abdil waxtaan wi du gudd waaye mi ngi jëm ci diggante bu dëgër bu doxoon diggante ñaari kilifa yu màgg ñoo xamante ñoom ñaar ñëpp jeexoon ci bëgg yàlla bëgg yonante bi bëgg sëriñ tuba radiallahu anhu ala fazkuruhuma fil kitab ñooñu day kuy waxtaan mënoo leen a ñàkk a tudd id baaxa awaluhuma bil iradati sadiqa ndax kenn ci ñoom ñaar ki njëkk a tudd mooy Cheikh Mouhamadul Fadal dafa jaayoon ak njureelam jënde ko taalibe gu dëggu wa baaxa saanihuma xawlatahu bil mahabbati al faiqa waaye ku ñaareel ki itam di sëriñ Afiya Buso ak nijaayeem moom la jaayoon jënde ko mbëggeel gu kawe gum bëggoon sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu kon fa hal waqaftum ahbaabil kiram ala kunhi wa xaqiqati man ani kon mbokk yi soppe yi yaakaar naa ne bëgg nañoo xam dëgg-dëgg jëmmi ñan laa jubloo wax mooy a Cheikh Mouhamadul Fadal ak nijaayam ja Sëriñ Afiya Buso radiyallahu anhuma ñoom ñaar ñi de mbokk yi jamaahuma nasabul karim aw askan wu tedd moo boole woo xamante ni nag naka jëkk ci mbaax ak diine ak jag ak jagle ak di jagal muy asalaax wal islaax ci lañ leen xame woon ak jàng ak julli ak liggéey jamaahum an nasabul karim fa kaana al awalu ibnan wa thani xaalan askan woowu nag ku njëkk ki doom lay doon ci ku ñaareel ki ku ñaareel ki nekk nijaay ci ku njëkk ki summa qawwaahuma alfadlu fa saara al awalu sayxan wa saani tilmisan li waalidil awal waaye ba leen yàlla boole ci mbokk aku askanitam itam nag ki njëkk a tudd yàlla jox na ko ngëneel bam doon ak sëriñ waaye doon ab sëriñ ndax ñaari yëf la doon na ak sëriñ ndax niñ ko waxe woon ci ay maamam ba ci ay baayam ci lu baax lañ leen ma a xame waaye moom tam doon na ab sëriñ ndax yëmut ca donn waaye dafa jaar fa ñooña jaaroon muy maam yaag bàyyi ba am ab cër ba nekk nekk mujj nekk ab sëriñ kooku mooy Cheikh Mamadou Fadal waaye ku ñaareel ki itam di sëriñ Afia Bousso jaar fa mu jaar waaye gis ku ko doy nag muy wayjur ku njëkk boobu muy Abdullahi wa xadimu rasulillahi mu jébbal ko ay mbiram ba leen askan woowu boole ba noppi te itam ngëneelal yàlla ak jagleem feeñ ci ku nekk ci ñoom ñaar saida thani bi maqaamaati al awal wa atarafa al awal bi xasaisi saani ci kaw loolu ku ñaareel ki muy sëriñ Afia bu son nangul na ku njëkk gi te mooy sëriñ a sëriñ Seex Mamadul Fadal maqaama ya ak daraja ya ko borom bi jox waaye Seex Mamadul Fadal itam moom mu njëkk a tudd itam nangu na jagleel gi ko ñaareel ki am mooy sëriñ Afiya Buso kon danañ déggoo fa kaana kullu waxidin minhuma yuqaddiru ma inda saaxibihi min himmatin aliya ku ci nekk ci ñoom ñaar nangulool na ka ca des ne ku am pëstéef la te pëstéef bu kawe la Seex Mamadu Fadal nangu woon ne Sëriñ Afia Buso ku am pëstéef la am yitte teju kawe waaye Sëriñ Afia itam nanguloon na loolu Sëriñ Fallu xam ne li muy doon doomi sëriñ sëriñ bi lépp lépp sëriñ bu mag bi lépp lépp itam nag borom pëstéef la borom dogu la te itam ku ci nekk nanguloon na ka ca ne ku am nag taalibe ak ku jeex tàkk ci bëgg yàlla ak bëgg yonente bi ak bëgg sëriñ bi loolu seen diggante la woon ñoom ñaar buñ dikkee nag ci diggante sëriñ Afiya Buso ak Cheikh Mamadou Fadal kaana seyqu Afiya Buso sanadan wa awnan wa habiban li seyqi Mouhamadul Fadal ñett yi ma wax yëpp mooy wéeruwaay la woon ci sëriñ Afiya wéeruwaay la woon ci sëriñ Fàllu ndimbalam la woon ab soppeem ndax fa ko sëriñ Fàllu tegoon mu xam ko féete ko foofa itam wa kaana al axiru yuhibbuhu wa yaxtarimuhu Cheikh Mahamadou bëggoon sëriñ Aafiya lool daan ko war maal lool itam doon na lim nekk nijaayam rekk la tax moo doon ko war maal te loolu itam jar na war maal nag waaye doon loolu rek bal idaafatan ala dalika li kawni seyx Aafiya Buso min awaili man taallaqu bi azyaalil Abdul Xadim waaye Serigne Fallou dafa xam ne Serigne Aafiya mi kan nijaayam la waaye nag am na cër ndax bokk na ci ñi ñi njëkk a nangul Serigne bi jaayanteeg moom te ku mel noonu rek Serigne Fallou di lay fonk boo nekkutoon nijaayam itam dana ko fonk ngir xam gim xam ne ci ñi njëkk a jaayanteeg sëriñ Tuubaa la wa mi man xadamu lahu wa tafaanaw fi xubbihi xam na ne itam sëriñ Afiya ca ña daa liggéeyal sëriñ bi la ña jeexoon tàkk itam ci bëgg sëriñ bi la kon fonk na ko ngir ñetti cër yooyu yëpp fonk ak yëg bi Seex Mamadu Fadal fonkoon sëriñ Afiya daana tax muy jël ci ay taalibey boppam di ko dénkaat sëriñ Afia benn ngir mu gën dolli leen ab yar méngoo seeni mbir walla ñu ñëw di ko jàppale cib liggéeyam yooyu yëpp nag ko fonkut koo yëgut loolu dox seen diggante waaye Cheikh Mamadou Fadal daana fab ay taalibeem di ko boole ak sëriñ Afiya ngir mu yar leen ak ngir ñu koy liggéeyal a ah, loola ci jamonoom la woon jamonoy sëriñ Afiya taxawaay bu mag boobu sëriñ Fàllu amoon na ko ci sëriñ Afiya bi fi jógee itam mooy bi fi sëñ sëñ Afiya bu sa jógee wuy ji boroomam ba tey loola la doxal ci njabootam doxal ko ci jëmmam itam bokk na ca la nga xamante ni ba jëmmi jamono ñoo ngi ciy sant moom Mamadou Fadal ñun sët yi mooy bis bi mutal Sëriñ Aafiya muy bis bi nga xam ne moo tax mu asasatu jaalibatul maraaxib di di ko lay taayale waxtaan yii ngir fàttali ko jaar jaari nit ñu baax rawatina ña sosoon lu baax loolu bis boobu di ñaar fukki fan ak juróom-ñaar wala guddik ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor wu ne Cheikh Mouhamadul Fadal moo ko sosaloon Serigne Afia ci atam dix neuf cent soixante et un muy mille neuf cent un ba ko sosee itam moo ko njëkk a taxawal Serigne Cheikh Mouhamadul Fadal moo njëkk a màggal màggal gi ci fob la ca war a dem lépp la màggal di aaja woo mu defal ko ca boppam ci alali boppam yëmu ca mu digal jàngkatu xasida bu mag boobee sëriñ Saalixu Caam mu fanaane fee jàng wëlbatiku ne njaboot gi njaboot ak sëriñ Afee ci njiital sëriñ Modou Faati Kanni Buso rahimahullah wa radiya anhu na ko yoon waa ngi doon Cheikh Mamadou sëñ Modou Faty Kani bu sey itam wéyal ndigal loolee di doxal màggal ga ba jóge fi ay rakkam di ko wéyal ba mu ci set yii te sëñ bu so Ndumbe jiite ko yàlla na ko yàgg a jiite dañ ci ànd ak moom waaye boo gisee ñuy wax loolu mooy haza dalilun kabirun ala mahabbatihi li xaalihi Cheikh bu so loolu day tegtale mbëggeel gi sëriñ Fàllu bëggoon sëriñ Afia ndax koo xam ne da ko doon taxaw bi mu fi nekkee di dund nga di ko jàppale nangul ko def ko kilifa mu jóge fii itam fàttewoo ko taxawal ko bis boo xamante ni ba ilaa yawmi diini insha allahu taala day wéy te bis boobaa dikkee ñu ko cay fàttali ko di ko ce ñaanal ah loolu nag wax dëgg yàlla beneen taxawaay la boo xamante ni rëy kon loolu ci tënk lool nag ci tënk lool bokk na ci li doxoon diggante sëriñ Aafiya ak seex Muhammadul Faadal loolu itam moo rogalaat ba ci diggante seex Muhammadul Faadal ndaxte sëriñ Aafiya dafay jóge am na ñu ne mille neuf cent trente seex Muhammadul jóge fi ci mille neuf kon mujj na fi moom seex Muhammadul Faadal mujj na fi sëriñ Aafiya ci àdduna si lu mat fanweeri at ak juróom-ñett yoo xam ne gunge na ko njaboot ak sëriñ Aafiya te njaboot googu itam aajo woon ku leen taxaw ak ñu leen taxaw loola itam mu taxaw ca taxawaay bu rafet boo xamante ni yeesut ci benn ak wet lam ci njëkk a taxawe mooy daf leen a fob jegeel leen boppam moom Cheikh Modou Fadal dafa fob njaboot ak sëriñ Afia Bousso jegeel leen boppam yéeg leen itam daan diisoog ñoom daa leen jox ay responsabilité yu mag ci xilaafa gi ak dëkk bi loolu itam la waxoon ci diggante mi sëñ Afia def ko ngir ne lam defutoon ngir ne nijaayam la amul taxawaayam yii mu am ci njaboot ak sëñ Afia bu sax ngir ne ay doomi nijaayam la waaye nag lima raa fi jumlatihim min sadaadi ra'yi wa xusnil qiyaada dafa seetlu nag nag yi waa njabootu Sëriñ Aafiya Buso gi ne kat ñu am xel yu jub lañ ñu mën a jiite lañ tax mu doyloo seenam xel di diisoog ñoom tax itam mu jox leen responsabilité yu mag yooyu responsabilité yu mag yooyu mën nañ cee tuddu ne Cheikh du Fadel moo noon Alhaji Abdoul buso moom Serigne Afia Bousso def ko mu nekk chef du village bu Touba lu tolleeg ñaar fukki at yu mat sëkk ñaar fukki at yoo xamante ni Serigne Abdou Bousso jiite na ko chef du village bu Touba ci ndigal Cheikh Mamadou Fadal te ku nekk xam na ne jamono yi muy jiite village bi jamono yooyee Touba ay jafe-jafe amoon na fi ndax lu tàmbaloon ci ay dix neuf cent quarante sept la woon mille neuf cent quarante ba mille neuf diggante boobu wax dëgg yàlla ay jafe-jafe ak dëkk bi itam neexutoon a yilif waaye la Cheikh Mamadou Fadal doon séentu ci moom ci xel mu jub ak mën a jiite feeñ na ca moom ndax ñaar fukki at moom tuutiwut te jiite na dëkk bi nag lu tolloog loolu naka noonu itam bi mu gisee ci ñoom ku mën a jiite ba jiital ko mu jiite dëkk bi ni la gisee ci ñoom itam ñoo xamante ni seen xam-xam doy na ko seen ak jub doy na ko mu sàkk ci ñoom ay imaam ñu jiite jiite julli juróom ci jumaa ju mag gi buñ tuddee al imaam Baye Alhaji Serigne Bousso ak al imaam bay Abdul Muttalib Bousso mu yóbbaaleen ci des ñooñu te ka leen jiitu woon nag mooy seen mag di sëriñ Modou Fati Kanni moom la sëñ Fallou njëkk a teg muy jiite naafile ci jumaa ji daana jiite julli juróom itam teg ca ñaari rakkam yooyu ba jëmmi jamono yi seeni sët di jiite yàlla na yàgg kon dafa gis ci ñoom biir sëñ fal dafa gis ci biir njabootu sëñ bu Bousso ñoo xam ne seen xam-xam doy na ko seen ak njub doy na mu samp leen ñu nekk ay imaam yemu ca mu fab bay sëriñ bu sa al moomu bi mu ta taxawalee jumaa ji moom Cheikh Mamadou Fadl ba jumaa ji yegg mu sos fa daarul maarif al muy kër guy jàngale diine ak yar bàyyi sëriñ bu sa al imaam mii la ca jiitaloon ne ko kaay toog fi di fi jàngale boole ko di jiite fekk bàyyi sëriñ bu sa ilmaan itam jàngal na koo xam ne doy na ko ci xam-xam ak njub muy alxaaji Mbàkke jaxate muy sëriñ as jaxate mu wëlbati wax sëñ Fall ne ko kii li ma xam xamal naa ko ak njubam itam doy na ma man na ma wutu ci njàngale mi waaye loolu lépp kon nag dafay tegtale ne ki doy bàyyi sëriñ Bousso doy na sëriñ Fallu muy alxaaji Mbàkke jaxate moom itam mu def fi liggéey bu rëy yàlla na ko fi yàlla yàggal mu jiital itam bàyyi sëñ Moussa Ilimaan ci bind xasida ndax loolu yàgg ci kër gi la tàmbale ko ci sëñ Cheikh Boussa Fati Kanni ndax sëñ bu sa moo fonkoon xasida loolu waxtaanu boppam la waaye bindam xasida siiwe ci biir njaboot gi te seeni kilifa yi tam ñoo ca nekkoon muy sëñ Cheikh Fati Boussa waaye nag bàyyi sëñ Boussa al imam mii téere yi xasida yu baree baree bari boo demee ca jeexital ca da gis ne moo ko bind ci ndigalal sëriñ Mouhamadul Fadal Mbakke ñu wax ne bu ko masaa bind itam sëriñ Fall dane ko ngir mu gën a wér na nga ko jox ñeneen yi boromi xam-xam ñu toppaat ko boroom xam-xam nga waaye boo wëlbati ko joxaatal yeneen borom xam-xam ngir gën a wóorluwaat boole kook sëriñ Mouhamadul Baaxir Buso rahimahullahu wa radiya moom maam alhaaj Mbàkke Buso boole koog sëñ Habibullahi Mbàkke al imam su bindee ba noppi jox ñooñu ñu topp naka noonu itam la àndoon ak liggéey Baye Serigne Jata ak sëñ Mouhamadou Amine Diop ak Dagana yëpp nag mbokk yi buñ ko toppee day gudd waaye dafay tegtale la doxoon diggante Serigne Fallou ak Serigne Afia rogalaan na ba ci ak njabootam. looloo tax itam nag fu mu mës a dëkk moom Cheikh Modou Fadal ànd na fa ak njaboot ak Serigne Afia ca Medina Mbooba ca Touba Bogo fu mu masaa dem day ànd ak ñoom ngir nangul giñ ko nangul waaye moom itam nag nangu gim nangoon nekk seen kilifa mat ko loole itam nag ku la ko defal ta ngay gor war ngaa gën a laxas waaye moo tax njaboot gi itam nag delloo nañ ko njukkal doon nañ yuqaddiruuna haada al mawqif al karim min aseykh Muhammad al Fadil fa ahabuhu xubban jamman wa azaruhu wa nasaruhu moo tax nag njaboot gi itam mujjoon sopp ko lool bëgg seex Muhammad al Fadil jàppale ko lool waaye itam wa wasalu fiihi ma amara allahu bihi an yusal bokk gi nga xamante ni moo doxoon diggante Cheikh Mamadou Fadal ak seen wayjur tam ñu gën a jokkaat bokk googee gën koo rafetal loolu lépp nag loolu nag ñoom ñëpp a ca manko woon njaboot ak sëñ Afia gépp tàmbale ko sëñ Modou Bousso Fatikan yi ma ca mag ak alxaaji sëñ Bousso ak alxaaji Abdou Bousso ak alxaaji Maxtaar Bousso ak sëñ Cheikh Bousso ak sëñ Abdul Muttalib Bousso ak sëñ Mahmoud buso ba ci alxaaji Thierno Bousso ak seen mbokk yu jigéen yi ndaxte mbokk yu jigéen yooyu ginnaaw bi fi sëñ bu mag bi bàyyeekoo ndax ña ca magoon ci jigéeni sëñ Aafiya yi sëriñ bu mag moo leen yóbbu ca kër gañ doon liggéeyale yàlla waaye ñi nga xamante ni nag jamono ñi toll ci loole jamono yu Seex Mamadu Faadal la moo yoroon seen ak kilifteef moo leen tànnal yóbbu leen te ñu doon liggéeyal yàlla loola itam di yoon wàccuwaay boo xamante ni bu ama am solo la kon njaboot gi xamoon nañ Cheikh Modou Fadal fa mu leen féete woon waaye ñoom itam nag delloo nañ ko njukkal ci nangul ko ak ànd ak moom dañ laa cee jox ay misaal rek waaye buñ ko doon topp kenn kenn dana sori alxaaj Ceerno Buso mii rahimahullah wa radiya anhu Cheikh Mamadou Fadal moo ko boole woon ak Serigne Abdou Khadir mu nekk ab sëriñam ndax booba kenn feeñ ci biir kër gi ci njawoot ak sëriñ Thierno ba ngénte la jotee Cheikh Mamadou sëriñ Thierno ko sëriñ Fallou sëriñ Fallou ne ko demal yëgal ko sëriñ Abdou Khadir ba bis ba jotee ba sëriñ Abdou Khadir yegsee sëriñ Fallou ne sëriñ Abdou Khadir tudd ko te tudde ko sa bopp wëlbatiku ne sëriñ Thierno boole naa ak sëriñ Abdou Khadir mi loo ma naroon a joxati jox ko ko loo may waxat tam wax ko ko lii moo ko boole te muy ànd bu rafet tam moom itam nag rëccu ko ndax dem na ba sëñ Abdou Xaadir ne ko buntu nga ci man buntu nga kon loolu bu ñu ko doon topp ci njaboot ak sinaaf ku ci nekk taxawaay ba nga am sa diggante ak sëriñ Fàllu duñ fi jóge ndax sëñ alhaji Bousso Ndumbe mii di xalifaam nee na ma kere ba mu feeñee àdduna wax nañ ko ne ko la dem ca tudd ga lépp Seex moom Mamadou Fadal moo ko def ba noppi ñëw ba ca kër ga leewu ko tudd ko tudde ko boppam loolu kon xam nga ne yàgg na ñoom njaboot ak sëñ Fallou nag ñoomatu sëriñ Afia laa wax kër goo ca dem fekk fa turandoo sëriñ Fallou te fekk fa sëriñ turandoo sëriñ Fallou loolu itam dafay tegtale nag lële kat du ay wax waaye dañ ko pratiquer jëfe ko ba noppi itam suuxat ko ci seen ak njaboot boo demee kër sëñ Seex Faati Kanni sëñ Alhaji Fadil Bousso Ndumbe mooy xalifa bi sëriñ Fallou lañ ko tudde nga dem kër Baye Abdou Bousso sëñ Alhaji Fadil Bousso màggat sëriñ Fallou lañ ko tudde nga dem kër sëñ Modou Bousso Faati Kanni sëñ Alhaji As Bousso Ngàjja sëriñ Fallou lañ ko tudde nga dem kër sëriñ Baye sëriñ Bousso al imam sëriñ Alaaji Fadil Bousso Bintu sëriñ Fadil lañ ko tudde nga dem kër Baye Abdou Moutalib Bousso sëriñ Alaaji Fadil Bousso Nafi ñu koy wax sëriñ Galas Nafi sëriñ Fadil lañ ko tudde nga dem kër Alaaji Makhtar Bousso sëriñ Alaaji Fadil Bousso muy Galas sëriñ Galas Makhtar sëriñ Fadil lañ ko tudde nga ñëw kër sëriñ Thierno ndongo lii di wax ak ñoom Fadil lañ ma tudde kon nag dëgg nag euh, lii buñ ko dee wax luñ ci jublu mooy mag ña rafetaloon nañ seen diggante jëf nañ ko wax nañ ko dox nañ bokk gi ba jébbal ñu ko génération ba ca toppaat tam muy sunuy wéyjur ñun ñi la doxoon diggante mag ña suuxat nañ ko dox ca wax ca jëf ca ba bàyyee ñu leen loola itam nag yaakaar naa ne ñu ngi ciy dox lii dox lii nga xam ne moom la mu assatu jaalibatul maraaxib def jël bisu sëriñ Afia bi delloowaat ko ka ko moomoon te mooy sëriñ Fallou ak njabootam tudde leen ci màggal conférence bii di ñëw ci màggal gi ñoom kon fàttewuñ la doxoon diggante Cheikh Mouhamadou Fadal ak seen maam sëriñ Afia Bousso ba ñëw ci seeni wayjur ba yegg si ci sët yi kon ñoo ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala moo fayal ñu leen te li nga xamante moom la ñu suuxat sunu borom def ko muy garab goo xamante ni bu bari meññat la boo law ba ñëpp mën koo jariñoo te luñ ci def itam sunu borom bindal ci tuyaaba mag ñoo ñooñu nga xamante ni ñoo ko suuxatoon ci ñun ñoo ngi ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala mu defal ñu jàmm ak salaam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf Cheikh Mouhamadul Fadal ci tom bu am solo boo xam bi nga xam ne indi nga ko defe naa képp koo xam ne doo ko teewlu teewlu nga ko ni nga ko war a teewloo di nga ci jëlee ay bind yu yu bare bari bari moo xam yu bees la wala yoo xam ne ak fàttaliku ak nafar lay doon mu doon waxtaane diggante wala relation Serigne Afia Bousso ak Cheikh Mouhamadou Fadal mi ab jarbaatam mu wax ci yu baree bari yoo xam ne xañ na jaaraat gi du yomb ngir ne day indi ak lëntal rek waaye ñu mën cee tudd rek bëgg gi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Fadal bëggoon na ko Serigne Afia Bousso te mu leeral bëgg gi ko waral ba indi ci yu baree bari xam na ne nekkul ni rek nim lim nekkoon di yaayam te doyoon na ci sëkk waaye nekk gim nekkoon ñi njëkk a ci sëriñ Touba nafaana allahu barakaati waaye doon na ko jëfee tam ñëpp di ko gis muy Serigne Serigne Serigne Fadal daana jël ay taalibe boppam di ko jébbal Serigne Afia Bousso ngir mu yaral la ngir xam naa koo doyloowu doo ko def waaye tam ginnaaw bi nga xamee ne Cheikh Serigne Afia Bousso jóge na fi. mu gën koo jëmbal itam mu bokk ca lam ko gën a jëmbalee mooy taxawalal ko bis boo xam ne ba ilaa yawmi diin day continuer incha allahu taala waaye yëmut ca tam ne mënoon naa wax rek ci Serigne Afia lay yem ndax mooy ne jaayam waaye mu continuer ko ba ci ak njabootam toppatoo leen euh, nit ci Serigne Afia Bousso waroon a taxawee waaye njabootu Serigne Afia Bousso gi tam jëmbal loolu daal delloo ixsaan ji nga xam ne moom la Cheikh Mamadou Fadel jëf eh, topp fonk ko moom it bëgg ko ba wax na ne foo dem ci njabootuk Serigne Afia Bousso gi foo dem ci seen kër yi da ko fekk am Cheikh Mamadou Fadel ñu ñu dëppeek ko kon jërul jaaraat jërul guddal waaye loolu def naa defe naa képp ku toppoon waxtaan it diglu ko danga ci jariñu bu baax a baax xam naa kon dañuy jox eh, Serigne Cheikhouna moom Cheikh Mouhamadul Murtada Fadal mu indi ay mu daa xalaatam incha allahu taala mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu molem ñi nga xam ne ñu ngi ñu topp ak ñu man di nekk di leen ziyaare bu baax ci pencu mi nga xam ne mooy pencum Sëñ Afia Buso eh, yàlla dogal ñu ñëw fi tey nag ci cadre eh, daayira bi nga xam ne moo ëmb sët sëñ Fallu yi eh, ñi nga ànd ak sëriñ Fallu mu sëñ Tahir ak sëñ Cheikhouna mu sëñ Mamor ñëw fekk si suñ bokk yu baax yi nga xam ne ñooy waa kër Sëriñ Afiya ci la nga xam ne def nañ ko muy loo xam ne dafa rafet lool muy bis bi nga xam ne mooy seen euh, conférence bi ñu tuddee ko tuddee ko ko Sëriñ Fallu bi ma agsee maa ngi fekk Sëriñ Fallu bisu Cerno di wax ci diggante Sëriñ Fallu ak Sëriñ Afiya yaakaar naa lim ci wax yaatu na lool wala boog li ma ci fekke am na solo te matale na kon xëy na li ma ci yokk mën naa bañ a bëri day nekk kàddu yu cant rek ak ngërëm ak rafetlu bu baax a baax euh, li nga xam ne mooy initiative bi nga xam ne waa Kër Sëñ Afia jël nañ ko te lépp rek day del day delloo gum ca boy boy ga ndax ni ko sëñ Fallou bu su waxee waxee rek <clears throat> ñaari kër yi maanaam benn la du ñaar ñaari kër yi benn du ñaar ndax sëñ Afia ak sëñ fallu euh, soxna Awa bu su muy wàjjur sëñ Fallou ak sëñ Afia ñoo bokk lépp kon sëñ Afia day day nijaayam joo xam ne mook soxna aw bu su ñoo bokk lépp. waaye sëñ Fallou it daan sàmm loolu ndax dëgg la sëñ moo ko féet mag lu baree bari waaye teewul daana ko bàyyi xel lool di ko diisu ci mbir yu baree bari daan ko booleeg ay nit eh, ngir mu taxaw ci seen mbir defe naa am na ay lettres yoo xam ne sëñ Fallou moo ko daan bind di ko ca booleeg ay nit ngir mu taxaw leen loolu day wane nag ni ko sëñ Fallou bàyyee woon xel ndax moom daa bokkoon ci magi taalibe yi nga xam ne sëriñ bi moo leen yar ba ba def ci ñoom la na ci ñoom. moo tax sëñ Fallou daan ko bàyyi xel daan ko diis ci lu bëree bëri waaye sëñ Afé it euh, moom it daan ko daan jàppale ci lu bëree bëri xëy na bi siñ Fallou nekk xalifa boo fekk na mu jóge fi waaye teewut daan ko jàppale ci ay mbir yu bëree bëri yoo xam ne xëy na ay mbir biir la daal kon diggante bi diggante bi yàgg naa rafet lool kon yaakaar naa bu waa ko sëñ Afé ñëwee defaat lii it day gën a rafetal rek la fi newoon kon ci tur daal njaboot gi ñu ngi sant bu baax a baax. di wane ne njabootu suñ Fallu bàyyi bàyyi nañ xel loolu suñu afiya busu rawatina sët yi ndax jamono yi nga xam ne ñu ngi tàmbalee li ñuy wooyee ay rajo bi yaat bokk na ci bërëb bi ñu njëkk a dem mooy fii ci fii ci eh, penc suñu afiya yaakaar naa am na boo xam ne ñëwoon nañ fi def jataay bu am solo boo xam ne ba léegi ñu ngi koy fàttaliku ndax amal solo loolu rek dañ cee jublu woon rek ngir feddale kóllëre gi ak ak jokk mbokk gi waaye bi nga xamee ne ñu ngi bind ab téere ci suñu Fallu yaakaar naa am na parti bu bu am solo boo xam ne ñu ngi ko jagleel sëñ bu so ndax lan ndax li li seqoon muy loo xam ne lu am solo la te mooy mbokku diina ak mbokku taalibe ndax yàlla da leen boole ñu bokk deret waaye bokk ak taalibe muy muy sëñ Tuubaa mi nga xam ne moom lañ àndoon doon ko liggéeyal kon daal euh, ci tënk ñi ngi santaat bu baax a baax di ñaan suñu borom fay leen aw yiw di ñaan jataay yi doon jataay yu yu bëri yu gën a bëri ndax day gën a day gën a day gën a dundal li fi newoon day gën a dundal li fi newoon di gën a feddali kóllëre gi ñi ngi ñaan ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ñaan daal ci turu mbokk ñi ma àndal mooy sëñ Cheikh ak sëñ Fallou euh, sunu borom gën leen a taxaw gën leen a kattanal ba ñu àgg ci bis bi incha allahu taala ndax sëñ Fallou dëgg la bis bi nga xam ne moom lañ fàttali sëñ Afia am na ci taxawaay ndax wax nañ ne moo moo jàppoon moo jàppoon bis bi mooy ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru Ramadan wax nañ sax bi ñu bis bi moom moo yabaloon jànkal fa doon jàng waaw kon lépp day wane rek ne suñu fa lu bàyyi woon xel suñu suñu afiya kon ñu ngi sant bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, kon xam naa mbokk yi loolu lañ leen indiloon ci euh, mu nekk bokk ci jotaay yi nga xam ne dañ koy leetaayale màggal gi ñu jëm te mooy bis bi ñu fàttaliku sëñ Afia Bousso te mu war a doon ñaar fukk juróom-ñaar ci weeru Ramadan lii nekkoon premier épisode bi nga xam ne dañ day laytaay la ci bis mag màgg bis bu màgg booba des mu des yeneen euh, ñoo ngi sant ñëpp képp ku woon di gërëm ñëpp ci euh, taxawaay yu am solo yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa